Fou malaat gis nañ si kaw cité kër góor gi la Ousmane Sonko la ñu doon barricade plus de cinquante et un jours su euh, ma juumule ou cinquante deux beneen bi New York la ginnaaw gi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall dem na si ONU ñi nga xam ne ñoo nekk ay euh, immigré wala ñi nga xam ne ay sénégalais nekk foofu se New York di manifester trois jours yi nga xam ne njiitum réew mi nekk na fa. quest image que ci jàngatee. ça veut simplement dire que Pastef est en vie. Mamadou Mbodj. Il y a un espace clos et un mm-hmm. espace ouvert. L'espace clos bi le lépp intérêt. L'espace espace ouvert bi la permissivité bi ñu tere ñu permettre de ñi ñu exprimer totalement. Ce mm-hmm. euh, que yi di wax ne euh, am na ku koy wax di tooñ ne lii day wane ne euh, fi nga ci États-Unis dëkkum liberté ak li nga xam ne manifestation bi fa xew boobu tey ndax yaakaar nga ne aussi njiitum réew mi di Sénégal li nga xam ne moom lañ koy génneel des images ay oto yoo xam ne mooy daw ñuy wane li nga xam ne yëpp moo fi xewoon ko manifeste maanaam manifestation muy changé ay hôtel ndax ndax ah, koo xam ne moo ngi tàggoo waroon nañoo yegg maanaam. yegg non fait xam nga xam nga tàggoo dafay rafet man bu ma ñëwee ñu dénk ma dara. ma bàkkoo ni yor naa ko yor bu rafet sama génn dafa war a rafet ñu gunge ma buñ may gunge di ma du samay militant rek mais réew mi yëpp yaa ngi fàttaliku euh, ki doon Allemagne waaw mm-hmm. bi muy nit ñi dañ doon bi muy dem célébrer la et avait toutes les occasions pour avoir ce type de sortie là mais dafa mel ni en fait mooy dafa bëgg dem mais dafa bëgg continuer di am le contrôle sur ce qui va se passer derrière lui alors que yow sa ay fégal nga. man awma droit parce que dafa melni ni dafa bëgg sacc ay dafa mel ni kër man yenn saa yi ma sacc ay. dafa am plein aussi de bëgg a gunge. waaw d'accord mais mais c'est le peuple qui est souverain ken xamul kuy falu ken xamul kuy falu et ces élections dinañ ci won dinañ ci won lu leer on aura la surprise on sera très surpris tous les sénégalais seront surpris maintenant image yu mel nii li muy woné moy en fait même c'est-à-dire je ne suma ma sama biir suma nekké sama biir rew ñu yu xoma suma ma rew mi ñu yu xoma yaangi dem oni di la tàccu mais na la waa ONU tàccoog ñëpp mais na la sa waa réew tàccu loolu mooy loolu mooy sa loolu mooy sargal bu la waa mbedd mi ne jërëjëfate te sa waa kër newuñu la jërëjëfate kooku dafay mandarga ni samba alarme nga. <laughs> Mbodj ndax mën nañu wax ne manifestation yooyu nga xamne boba tay ñu ngi koy interdire ci réew mi ñu bari ñu ne détenu politique yi manifestation yi ñuy ñu doon bañ fi ci Sénégal ñi nekk ci diaspora bi mom lañ nekk jamono gi diko ko defan njiitum réew mi fee ci États-Unis mu lay wax légui rek moy espace fii c'est espace fermé interdiction confiscation de liberté. Mm-hmm. fële c'est un espace ouvert. Mm-hmm. donc espace ouvert vous rek permettre de ñi manifester. Mm-hmm. di vois, c'est exprimer seen colère c'est indignation. donc l'OLU, vous demee France régulièrement nous ngi koy def États-Unis def nañ ko wane nañ ne euh, nga xam ne le européen gisee Macky ak li nga xam ne Sénégal yi du et ça c'est très important parce que comme nous ko waxé bu nee nit a baax ñu ne ndax mbokk ya ko wax ndax mbokk yow wax sénégalais yi wan nañ waa ONU que ci biir espace bi ngeen tëj noonu mën ngeen ko sargal mais bu ngeen génnee ñun sénégalais yi sargale wuñ ko noonu. mais euh, combat bi ñuy def nii ndax mën na am jeexital. mais combat bi c'est important. c'est très important c'est très important. combat bi li tax mu am solo mooy que ni en fait la lutte elle se mène partout. il y a des mais ceux qui sont dans la diaspora ils participent au vote. ils mm-hmm. contribuent au développement du pays ils envoient beaucoup plus d'argent que nous recevons de l'aide, que l'aide que nous recevons de, des partenaires internationaux en termes de contribution. Nous mhm. Pourquoi la diaspora est considérée comme 14e région ou 15e région Parce qu'on a des députés de la diaspora. Et le député, son rôle, c'est effectivement de représenter le peuple. Donc, les Sénégalais nous savent, c'est la première fois de l'histoire. C'est-à-dire, les arrivés, les amenés, aujourd'hui, même avec Abdoulaye wad c'était moins que ça. Mais aujourd'hui, l'affaire doit atteindre un niveau, bon, dafa dafa dafa jéggi dayo mais malal buñu xolé xoolee ñi nga xam ñoo nekk ci diaspora bi seen dundin mo gëna baax seen nekkin mo gëna baax mais bo xolé ak ñi nga xam ñoo nekk ci réew mi bon duñu wax né ñom ñoo gëna a conscient wala ñom ñoo gëna xam enjeu yi lan moy waral lolé ñan ñoo gëna xam enjeu yi. mooy ñi nekk ci diaspora bi. mais parce que ils sont dans des pays très démocratiques. Hmm. c'est très très normal. Hmm. ki nekk France. di fa yéwo wala nga nekk Amérique di fa yéwo di gis en fait ni fa démocratie mel ni fa ni ñu fonké doomu adam tu deviens Europe tu deviens beaucoup plus exigeant par rapport à ce qui te dirige ici mon mm-hmm. motax effectivement ñom dañuy également une grosse influence sur ceux qui sont sur ceux qui sont ici.